naafila huit guddi juróom-ñetteel gi ci weeru koor sopp nañ ko ci julli ñaari rakka rakka bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng xul huwallahu ahad fukki yoon ak ñaar xarafu ci nekk des na ko ci bindal tuyaabay jaamu yàlla ak junni at te dana mel ni it ku leel woddu mandal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yépp te bu dekkee dana dékkiwaale ak leer te buy jéggi siraat day mel ni ak melax te des na ko ràmmaloo juróom ñaar fukki nit yoo xamante ni sawara yayoon na leen mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral nga dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suwaybu bu Mbàkke page 143